comme ni nga defee fi mu toll nii dama ñëw ci Eumeu ak la dëgg nga décortiqué. waaw dama décortiqué mais dama far. waaw léegi yaay xool. Eh, combat bi Eumeu jot xëy nga fa tamit. Eumeu jot fa non non Eumeu jot fa raw kenn. waaw ci kon dañoo am lu nga xamante ni ci Modou Lo ci côté Modou dafa am benn benn fort bu nga xamante ni dafa utiliser ak ak ak garde norme fausse garde yi moom garde normal la. tout le temps da dafa suñu borom da ko da ko dimbali moom bu ngeen ne tab rek day armé mooy ay uppercut loolu fooram la daf koy def Ama Baldé dafa am benn faible bu nga xamante ni ci combat ak Modou laa wax de benn faible bu nga xamante ni moom lay def te droite ba dafa yéex mooy ko droite lay dóoree te euh, pied droite lay teg te Modou Lo loolu lay wër waaw. te Ama Baldé dafa bëgg arbitre ne mu ne làmb ji day jeex tey dafa bëgg arbitre ne prip mu ne làmb ji day jeex Modou mbër la bu nga xamante nii li muy def noonu sax lu baax la ci Modou mais na bàyyi xel bu baax baax a baax a baax buy songu Modou Lo nag kanamam gi na na ko na na ko sécuriser maanaam na ko na ko na ko confiner na confiner kanamam gi buy songu Modou Lo. maanaam daal su ma déggee wax ji maanaam ni Ama Baldé di entamer combat am loolu mooy li arrangé Modou Lo. du ma ne la li arrangé Modou Lo dafa am am ñu nga xamante ni comme Balla Gaye wane na wane na wane na wane na faaya maanaam boo ko ërtalee du fekkagum mu nekk maanaam turbo la. bon yow bul bul bul bul dellu gannaaw bul dellu gannaaw waaw. non dellu ma mu dellu gu ma gannaaw parce xaju fi. damay jël Eumeu Sène junior ma teg sëriñ nii Serigne Modou wax man lépp lu ma lay wax barki Serap Fall la amul lu ma siy dellu ginaaw dongam Serap Fall laa. bisimilah boobu bu ma rusul nit ñi nii man damaa ruus samay wasi la. li ma lay wax nii amul lu ma si dellu ginnaaw maa ko wax dama ne la Modou turbo la xam nga tax mu nekk turbo mooy ko boo nee prime nii du fa nekkagum mais bu làmb ji tàngee bu làmb ji tàngee dafay naqaree jële Balla keneen du koy ñëw nangu ñu de passage le roi di Guédiawaye Balla Gaye dafay ñëw def li mu bëgg a def balaa mu loo di xalaat mu dem nekk ci leneen ah ba leneen man ma ne mën na def mee na bàyyi xel kanamam gi. na bàyyi xel kanamam gi laa la wax moo tax ma ne la ko confiné na confiné kanamam gi. léegi bu fekkee bu fekkee Ama Baldé Ama Baldé naka la war a entamé combat am parce que comme que ngeen ne droite bi lay teg te droite lay dóor te dafa xaw a yéex te Moodu waaw droite bi waaw te Moodu dafa xaw a gaaw loo koy wax. ata gis ngeen de lii de fii rek la am. yaa ko ci dara de mais bu doon café Touba nag ah, day fay de. <laughs> Ah, Ama Baldé droite bi dafa yéex. te pied lay teg ndaanaan la bërikat la diis na am na doole. loolu noonu yëpp suñu boroom dogal na am na ko ci combat bi mais na bàyyi xel loolu ci Modou Lo laa la wax song bu song na bàyyi kanamam gi xel. parce que saa suñu jegante buñ songee dèjà Ama Baldé loxom bi nga xam ne mooy forum pour dóor day éliminé wu Modou Lo loxom bi forum pour dóor day libre. voilà loolu laa lay wax. moo tax man la na na na confiné kanam gi maanaam bu ko kenn gis kanamam gi bu ko am bu ko gis. no bu songee noonu rek bu ko sàng kanam gi day libre Modou Lo day simpi xaañ day rotti rek dóor.